lin xam ci moom maanaam mission bi ngeen ko jox fii ci dëkk wax dëgg yàlla mi ngi koy doxal ba mat defaluñ ko dara danoo yërëm rek ak xam li war a am ak ñàkk dox gi bi mu la ko waxee itam tànk ya nga ca taxaw ak na nga wax ak na nga doxe ba yàlla dimbali la nga am ci ndam noo lay ci sant bu baax di la gërëm di sant président de la république moom moom mi nga xam ne moo la jox place bi te fii di këram ndax ñëw na fi ñetti yoon bi fi sëñ ñëw fii seet si ma ñëw na fi ñëwaat na fi ñaari yoonu fanaan fi salle bi ci gannaaw moo taxoon ma def ko fi kon léegi lépp cant la rek sant nan la nag bu baax gërëm la ci Bàmba bi mu ko waxee suñ problème nga jàpp ca ban am ci yaakaar ba nga ñëw sa tànk tey ñëw fii loolu nun noo ngi la ciy sant bu baax di la gërëm di ñaan itam yàlla mi moom lépp jàlle ko ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke Sëriñ Tuubaa suñ sëriñ lépp loo xam ne bii soxla nga ko rek ci sa liggéey rek yàlla defal la ko defal la itam lu kawe sa njort ndax koo seen muy dem boppam la am waaw nun ñii fi nekk ñëpp nun ñëpp yàlla rek man waaye koo seen rek boppam la am bu la neexoon nit wax dëgg yàlla nga dem ne forage bi maa ko fi def dem fa taal say oto ak say nit dem nuyu bañ a nuyu borom dëkk bi te boobaa du wàññi dara waaye nag nii dana gën a rafet dana nu gën a jox yaakaar danu nu gën a xam ne lii mooy doxinu kilifa ndax kilifa bu ne ñëwee ci dëkk ku mu fa fekk rek war na koo mën a nuyu sagal ko ñoo ngi lay sant bu baax di la gërëm nuyu nag lan man danañ ko def ba ñëpp gën laa xam gën la ràññu ko ci li ngay liggéey te koo mën a jàppale nga di ko jàppale ñoo lay sant bu baax di la gërëm loolu mooy kànt yi nga xam ne bi moom laa ci waroon a sant maa ngi nuyu itam kilifa euh, dëkk bi xam nga fii ñaari penc la waaye lu ci ne rek dañ lay wax ni mu demee fii sëñ Moussa Mbacke moo ko sañcoon 1912 ak Tindo di gii sëñ Modou Moussa taawu sëñ Touba dëkk ak Ndindi loolu 1912 lañ ko sañc sëñ Modou Faty Khary suñu bàyyi nag dafay ne woon moo tax nag fii nu daal di koy moom suñuy bàyyi nag yi nga xam ne bii suñ rakk pàppala la dem bi ñëwee ñu dem fee def ak daaru kër waaye lépp benn penc la waaw ndax ñii nekk fii ñeneen fee ñoo leen yilif mm-hmm. kon léegi. sëñ maam Mor Mbacke mi nga xam ne bii mooy xalifa ma Massamba ak sëñ Abdou Khabir rakkam ak sëñ Cheikh Mbialla mi nga xam ne bii mooy suñ kilifa di jëwri ni liggéey bi ñoom ñëpp sama kàddu day dugg ci sa seen sama kàddu day dugg ci seen kàddu ndax ñooy sama kilifa ndax fii moo mag waaye nag fee euh, ña ña nekk foofu dañoo yilif ñi ñu daal koy dem nag benn dëkk yàlla dogal centre santé bi mu ñëwee ñu yóbbu ko fii hôpital bi mooy hôpital boobu euh, bi fo bi bi forage bi ñëwee tam ñu seet ba ngeen ni fii la war a mën a ne ci xam-xam mu nekk foofu kon ñooñ ñëpp dafay mel ni rek seen ndaw laa di wax ci seen kàddu kon comme fee ñëw dafay baax maanaam boo ñëwee ñu leeralal la li war a am ak li am lépp noonu la mbir moomu deme waaw noo ngi sant nag bu baax di la gërëm jaar gi nga fi jaar itam réyal nañ ko lool bu buñ ko teeloon a xam ni dana dana demee neneen sun xol seet na guy yàlla na leen yàlla jàppale. ziar bu baax di ko gërëm aussi si dalal bi di wax ne rek euh, président de la république bi nga tudd moom lii lañu ñu euh, daf ñu wax rek ne ñu euh, gox bu nekk war na mën a am ndox ba pare ndox bi nekk de qualité ci liggéey boobu nag nañu nekkoon tey nar ko baral ndax ñëpp xam nañ ne màggal bi léegi mu ñëw te su ñu defee diagnostic yi xool par pàcc yi nga xam ne ci Touba ñoo gën a am jafe-jafe suñu wareef rek mooy ñu jël ay mesures pour mën a corriger loolu ci tànk yooyu nag nañu nekkoon moo tax ñu ñëw fi tey di sant yàlla bi nga xam ne ci ndimbalam moo ñu permettre ñu mën a samp forage bi fii nekk ci sa dëkk euh, forage bi nag am nañ ci yaakaar ndaxte ñi ngi xaar capacité deux cent mètres par heure mu nekk quatre mille jour te loolu lu am solo la ci distribution bi Euh, ñëw nañu fekk nañu ne entreprise bi ñu ngi ci liggéey bi gis nañu forage bi ñu ngi koy bëtt bu baax te li ci am solo aussi mooy euh, réseau bi mooy tracé bi connect euh, pour ndox bi gis nañu entreprise bi nga xam ne moom lañ ko dénk tamit moom mi ngi defar canalisation yi ndax ñoom ñaar ñëpp dañu war a àndandoo pour pare pour ñu mën a yaakaar ne avant màggal bi di ñëw dina fekk. Euh, réseau bi augmenté de presque quarante pour cent ci li ñu objectif yi ñu définiroon vraiment loolu moo doon tànk yi di gërëm aussi chef de village bi ndaxte moom aussi mi ngi ñuy accompagner depuis bi ñu amee mbébét bi pour samp forage bi fii bamba moom seen bamb la daanaka euh, wax ji moom benn la dañ koy gën a encourager rek ko xamal ne ko liggéey bi moom yàlla moo ñu ci boole. te liggéeyal sëñ Touba moom privilège la man wax naa ko suma maam sëriñ Serigne euh, Mountakha ma ni ko man de ci wàllu xaalis laa doon liggéey xaw ma sax lan moomu indi ci wàllu ndox te loolu yëpp yàllaa ko namoon rek xam naa dafa amoon rek lu ma waroon liggéey ci liggéeyu sëñ Touba bi moo tax mu indi ma fii makk kay nangul nag waaw di xam ne lii moom mbégte rek moo ci am waaw di la gërëm di la sant di sàkku ci yow ñaan ndax liggéey bi diis na Euh, metti na waaye soo àndeek ak euh, gëm-gëm ak caawateef rek yàlla mun na la dimbali ba nga xam ni dina oyof ci yow ndax wàllu ndox moom gis nga chaque jour dafay nekk loo xam ni mënul xaar ndax nit yi dañ ko nekk loo xam ni loo moom comme ni tubaab bi di wax c'est la vie donc moo tax ñu ngi ñaan sàkku ñaan nga ñaanal ñu bu baax ndax fii moom ndimbalu yàlla rek fi am amul leneen euh, lii sax ndimbalul yàlla la ndax yàlla xam na ne année bii bokkul woon ci budget bi bi ñu toogee ba def évaluation bi ñu ni non fii il faut ñu def fi forage ndekete yàlla namoon na ko moo tax mu def ko ñu ngi lay gërëm di la sant sant yàlla bi ñu ñëwee fii tey ci dëkk bu tedd bi ngir euh, wéyal liggéey bi liggéey bi nag mooy li nga xam ni moom nañu euh, yéene woon def pour màggal bi ñu ñëw saytu liggéey bi euh, seet ndax liggéey bi mi ngi mi ngi mi ngi avancé bi ñu ñëwee nag euh, euh, gis nañu ne que visité nañu chantier yu bëri forage bi nga xam ni moo nekk Daaru Karim moom nga xam ni forage bu mag la parce que mi ngi injecté ci réseau bi 4000 mètres cubes donc mooy 200 mètres cubes par heure donc 4000 mètres cubes jour boobu gis nañ ne Euh, mettre nañ ko en service te jot nañu sax ne ci di dëkk yi nga xam ni ñoo nekk ci wetu forage bi ne ñoom ñi ngi gën a am taw féex ci wàllu ndox bi donc loolu tamit muy loo xam ni dañ koy rafetlu beneen forage bi nga xam ni moom dañ ko dugaloon ci plan d'action bi à la dernière minute mooy forage bi ñu décidé woon def pour euh, euh, Daaru Karim ndax dañu seetoon ne foofu dafa moon ay jafe-jafe yu tar bi ñu demee ci site bi fekk nañu entreprise bi nga xam ni moom moo yere marché bi mi ngi liggéey euh, vingt heures sur quatre dañu am ay équipe yoo xam ni dañ ko fa teg ñoom wax nañu ne euh, que d'ici ñaari semaine rek euh, wala ñetti semaine lu ëpp forage boobu dina pare wax nañu entreprise bi nga xam tam moo war a def réseau bi ndax ndox bi su génnee ci forage bi il faut que mu am lu ko yóbbu ba ci kër yi donc entreprise boobu tamit ñëw nañu fekk sax moom mu mu def tracé yi ba gas ba dugal tuyau yi moom nee na dafa bëgg sax njëkk pare forage bi comme ça su forage bi paree rek ñu def raccordement yi foofu tamit am na ñu yaakaar ne euh, dinañu amaat 4000 mètres cubes ndax euh, euh, suñu objectif moo doon 10 000 mètres cubes donc 4000 mètres cubes ak 4000 mètres cubes Touba Ndiarème mu nekk 8000 mètres li ci des mooy li nga xam ni mooy mesures yi nga xam moom la ñu jëloon. Euh, pour améliorer réseau bi ak distribution bi euh, d'abord euh, forage bi nga xam ni moo nekk Njisso boobu cinquante mètres cubes la boobu relancé nañu forage bi mi ngi daw suppresseur yi nga xam ni moom moo war a jël ndox bi di ko def ci citerne yi pour citerne yi mën ko jël yóbbu ko ci fi nit yi nekk muy disposition d'appoint bi boobu tamit gis nañu ne Euh, suppresseur bi yóbbu nañ ko ndakaaru wekki nañ ko démb pour yóbbu ko ndakaaru pour defar ko dinañ ko indi ci biir semaine bi donc ensuite jël nañu yeneen yeneen yeneen euh, mesure yoo xam ni mooy remplacer vannes yi vannes yi mooy fi nga xam ne ndox bi foofu lay jaar euh, yooyu yëpp dañ koy remplacer ndax vannes yi dañu gisoon ne amoon na ci lu am yu bëre yoo xam ni dafa yàqu woon yooyu yëpp tamit changé nañ ko réhabilité nañu forage yi ci quatorze forage yi ñu décider woon ne dañ koy réhabilité daanaka huit yi presque réhabilité nañ ko ba pare donc liggéey bi ñu ngi rafetlu dëgg-dëgg euh, niñ koy wéyalee euh, ci biir euh, Touba di ci gërëm ñi fi nekk ñëpp di ci liggéey muy Bamba bi nga xam moo fi nekkal Ofor mu am tamit mu ñu nekk régional yi nekk Louga ak yi nekk Kaolack yi ñëw en renfort ñooñu ñëpp ñu ngi fii di ko jàppale ci liggéey bi ñu am yaakaar ne rek année bii moom en tout cas euh, dinañu am euh, taw féex par rapport ak daaw jow yaakaar nañ ko te waxtaan nañ ci ak euh, kilifa yi fi nekk mooy porte parole bi Serigne Bass Abdou Khadre expliqué nañ ko liggéey bi ñu def yëpp mu rafetlu ko donc ñëw tey ci Serigne Ousmane Mbacké nga xam ne moom aussi liggéey bu am solo la ci am moom tamit rafetlu na liggéey bi waaye seetlu nañu rek ne liggéey bi tamit dañu war a gën a améliorer coordination bi ndax du effort rek moom moo yore wàllu ndox fii ci biir tubaab am na ñeneen ñoo xam ni ñu ngi yëngu ci wàllu ndox bi li ñu war a def rek mooy si léegi euh, chaque année dañu war a ñun suñu plan d'action yëpp ñu boole ko xool euh, naka nañ koy wéyalee ñun ñëpp. te loolu d'accord nañ ci te defe naa foofu nañuy jëm incha allah. moo koppar bi moom xam nga amul njëriñ li ci am njëriñ rek <laughs> parce que koppar bi ñu ci génne moom ça concerne OFOR mais li ci am solo mooy euh, gouvernement du Sénégal euh, dégagé na lu takku pour ñu mën a def liggéey bi benn ñaareel bi mooy li ci am solo tamit mooy diagnostic bi ñu defoon moom nañ doon apporter ay réponses mooy diagnostic bi mooy. jafe-jafe yu ñu gisoon moom la ñuy jéem a saafara looloo ci am solo te loolu defe naa ne ci nañu nekk ñi ngi gërëm en tout cas ñi ñu fi fekk autorité administrative yëpp mooy gouverneur bi ak euh, le sous-préfet Mar moom nga xam ni vraiment question bi léegi moom defe naa daanaka moom préfet wu ndox la ndax question bi daf ko intéressé bu baax a baax waaw